asalaamaaleykum waa Sénégal man la Seydina euh bok ci doomu senegal yi bloqué wu fi au niveau de Maroc ñi nga xamne ne dañ ñëwoon voyager juste pour 5 jours ni une semaine ni 21 jours suñu borom tay eh, dogal ni coronavirus bi wër aduna bi eh, ba tax bañ bloqué eh, bañ tej frontière yi ñu bloqué wu fi Maroc ñu bëgg ñibi nak vraiment di bëgg ñibi di dund lu metti di dund lu metti amna ño xamne xam li ñuy dund tay jii na leen ko yalla neub na leen ko yalla nëbb amatuñu lu ñu dundee hôtel yi ñu jëloon fay ko pour cinq jours dix jours mënatuñ ko fay ba ñu génnee leen ci hôtel yi am na ñoo xam ne ci mbedd mi lañuy fanaan am na ñoo xam ne ci mbedd mi la ñuy fanaan ñu ngi fi bëgg a yàgg nag léegi ñu def fi deux mois parce que bañ tëjee frontière yi léegi mi ngi bëgg a yàgg vraiment euh, li ñu waroon def def nañ ko parce que ñun ñëwuñu woon fii pour toog fii dañ fi doon ñëw uniquement pour liggéey. ñii ay commerçant lañ doon doon dënd ci ay bagage ñii dañ doon euh, dañ doon fajo si ñii yalla dogalon ñu demone fee ziaré ñii ay gp lañ rapprocher nañ nak consulat bi euh consul bi jakarlo nak mom waxtaan ak mom mais niveau fi mu toll vraiment fa la yam avion son excellence président de la république rek moo ko mën indi fi Maroc dimbali ñu te yalla tax indil ñu avion vol de rapatriement mu jël si ay doom parce que li ñuy dund fi metti na nala ko yalla neub tay heure bi ni ni ni bo demone tay si si si buntu marché yi sénégalais yaa ngi tëdd foofu di fa fanaan metti na trop metti na trop amna ño xamne amuñu luñu lek amuñu luñu naan amna ño xamne ñu ngi ànd ak ay yu ndaw vraiment metti na ñun wuñu dara bugguñu bugguñu dara nañ ñu indil avion vol de rapatriement ñu ñibbi si parce que premier vol bi ñu indi woon Air Sénégal man dama gëm ne Air Sénégal moo doon jël si ay ay clients am parce que ñun ñu voyagé woon ak beneen compagnie mënuñu woon dugg ci avion bi tant que jënduñu billet 3000 dirham mooy 300 euros 190 mille francs am na ñoo xam ne dañoo jënd seen billet ba pare aller retour def seen achat yëpp war a ñibbi tey jii nga koy jëndaloo billet 3000 dirham loolu dafay métti ci moom loolu jàll na mais période bii ñu toll nii li ñuy dund dafa metti ci àdduna gars yi li ñuy dund fii nii moo raw coronavirus moo raw coronavirus président de la république dañ lay ñaan li laay war a sori nga gëstu say doom yi nekk ci àll bi ñu ngi dund lu metti man la Salimata Gueye waaw ma nekkoon benn ndaw doomu senegal ñëwoon Casablanca juste pour une semaine comme samay morom yu bari jëndoon suñu billet aller retour waroon ñibbi daanaka bi ñu ñëwee ba fii nag am luñ fi dal mooy tiis bi bañ tëj aéroport yi ñu ngi nii bloqué wu bientôt léegi ñu def fi deux mois waaw te fii nag daanaka ñëpp xam nañ ne sori sa réew dafa metti trop waaw parce que yaa ngi fiy jànkonteel des fois ay situation yi nga xamante ne nga war a ñibbi nekk sa wetu famille surtout que koo xamante ni tey ñëwoo fi woon pour toog da nga ñëw juste pour un laps de temps pour juste ben une semaine warul ñibi waaw metti na trop nag vraiment waaw té danaka du man kessé bari na fi ay morom ñi fi coincé wi ñu nga xamante tay amon nañ tamit seen bi aller retour warul ñibi waaw boobu ba légui nak togu ñu ngi def suñu démarche demoon nañ ba ci consul bi waxtaan ak mom pour ñu dimbali ñu pour mu jàllaleen ñu message bi euh Euh, si président Macky Sall pour ñu dimbali ñu pour ñu mën a am suñu benn vol de rapatriement pour mën a ñibbi suñu wetu njaboot waaw daanako dossier yëpp dem na mais lu ñuy ñaan Macky Sall mu dimbali ñu pour ñu mën a am benn vol pour mën a ñibbi suñu wetu njaboot ñun bañuñu sax ba ñu quarantaine ñu bu nu ñëwee Sénégal même bu ñuy quarantaine benn quatorze jours sax ñun accepté nañ ko amuñu problème mais juste lu ñuy ñaan rek mooy ñu dimbali ñu ñu am vol ñu mën a ñibbi. parce que tamit lii situation yu mënul continuer te tamit ñu ngi fiy gën a yàgg mu ngi gën a metti suñu côté waaw man nag maa fi représenté ndaw yi ñoom ñëpp maa leen représenté daanaka mën naa ne man maa leen di waxal ñoom ñëpp loolu daal lañ doon ñaan Macky Sall Macky Sall ñu ngi lay ñaan ñu am vol mën a ñibbi suñu wetu njaboot waaw nekk suñu wetu famille bañuñu ba quarantaine mun même ñuy quarantaine sax ñun nangu nañ accepté nañ ko waaw may lancer Autorité pour nous appeler. Chers Sénégalais, je suis un Sénégalais et membre d'un groupe de Sénégalais coincé ici dans le royaume du Maroc à cause de la pandémie Covid-19. Nous tenons à lancer ce message au gouvernement sénégalais car cela va faire bientôt deux mois que ses fils, qui étaient juste de passage dans le royaume, vivent la galère et que la situation devient de plus en plus catastrophique. Ces dignes fils sénégalais n'arrivent plus à manger. Et pire même, plusieurs d'entre eux dorment dans les rues de Casablanca. Vu la situation, nous étions même allés voir le consul pour lui poser notre problème. Mais en vain, pas de réponse positive. Ce dernier est allé même jusqu'à nous dire que la décision revient au gouvernement sénégalais. Et pour cela, nous lançons un cri de cœur au gouvernement sénégalais pour leur dire que la situation devient de plus en plus catastrophique et nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons rentrer au Sénégal et que la seule solution qui se pose, c'est un vol de rapatriement.